soññee ci lu jëm ci wàllum rafetal ak fekk sa lor sa digganteeg doomi aadama yi ab jullit borom bi subhaanahu wa taala ko digal muy rafetal wa axsinu inna allaha yuhibbul muxsinin su borom subhaanahu wa taala dafa wax ni dee leen di rafetal dee leen di rafetal ndax yàlla kat dafa bëgg waaye rafetal bi ci noonee mu diglee ak rafetal noonee it la diglee di wattandikuloo di lor sa mbokk الرحمن والذين يؤتون المؤمنين والمؤمنات بغير nga xam ni dañuy lor way gëm ñu góor ñi ak way gëm ñu jigéen ñi ci loo xamante si nii kat nekkul seenu pàgg jeef nan gàddu nan lépp luy tekkale baat boobu rek ci aw góor ak bàkkaar biir ibnu rajab alhambali dafa wax ni aaya yi na lépp loo xam te si nii kat day tekkale ni lor muy bàyyi ko ci ab jullit jëm ci jullit ci anam yépp min qawlin aw fi'lin bi gayri xaqin ci lor goo xam ni dafay bàyyi ko ci wax walla lor joo xam ni dafay bàyyi ko ci jëf mbokk yi rafetal dafa bokk ci jëf yu baax yi dafa bokk it ci jikko yi nga xam ni sant nanu ko jikko yi nga xam ni rafet rafetlu nanu ko ci lislaam bu dee sifaan ba moom mooy lor ak lépp luy tegtal dafa bokk ci jikko yi nga xam ne lislaam daf koo ŋàññi lislaam daf koo ŋàññi ba tax na yonente bi alayhi salaatu wasalaam daana wattandikuloo bépp bunt boo xam ne rekk lor sa mbokkum jullit da say a juddoo ngir ni kat am na bunt yoo xam ni sala loraa ngi di ubbi ko ndax toogaayu mbedd rek lor sa mbokkum jilit mën na saa juddoo moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana loo yonent bi dafa wax ni iyaakum wal juluusa ala turuxaat fa qaalu maa lana buddun innama hiya majalisuna nataxaddasu fiha yonent bi dafa wax saxaaba yi ni leen maa ngi leen di watt ndikuloo ngeen di toog ci mbedd yi saxaaba yi tontu ko ni ko yaa rasulullah ñun kat mënuñoo ñàkk toog ci mbedd ndax foofu la ñuy féexloo foofu la ñuy waxtaane yonent bi daal wax ni fa ida abaytum illa al fa aatu tariqa xaqa bu fekkee ni mënu leen faa ñàkk a bañ ngi leen ni ngeen jox toogukaay boobee di mbedd mi àqam saxaaba yi bëgg lu leer ne ko maa xaqu tariq aw yoon wala mbedd lan mooy àqam yow yonente bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam indi ci ay tomb nii gaddul basar wa kaful aza wa raddu salaam wa amrun bil maaruf wa nahyun anil munkar axrajahu al-Buxaari yonent bi nii yéen saxaaba yi xaq yoon xaqi toog ci mbedd mooy yii may bëgg a lim bu njëkk ba mooy raddul basar damm sa gis damm sa gis ba doo ci xol araam waaye de am na ñoo xam ni suñu toogee ci mbedd ngir tàllal seenu gis daanaka mooy tax ñu toog si te loolu bu fekkee ne soo toogee sa si mbedd soo jëfee waxi yonte bi alayhi salaatu salaam mooy damm sab gis ah kon mel na ni toog sa biir kër di tàllal sab gis mooy ëpp tuyaaba ndax yii saa jullit bi sàmmante gi léegi dafa néew ci colin te bët moom li feeg yaa ngi koy bàyyi muy wëndeelu di xool lu ko neex muy gàddu du indil sab xol sam xel muy xalaat te loolu mooy indi bàkkaar loolu mooy indi àq sa diggante ak sa julli ndax sa bët mën naa indi jox sam xel muy xalaat sam xel bu xalaatee nees tuuti sa mbokkum julli toog nga nekk sa si derog sa mbokkum julli kon mbokk yi li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ni raddul basar mooy damm sab gis dañ koy bàyyi xel ndax loolu loraange di safara bi ñaareel mu ne ko kaful aza fekk lor soo toogee ci mbedd na nga fekk say lor ba du àgg si sa mbokkum jullit ndax yii saa am na ñoo xam ne seen toogukaay mbedd béréb bay toog dañuy bëgg lu ko ñàkk ba mujj sax dinañ jël àqi yoon wa te loolu rek loraange la yii saa it da séen mën nanoo bañ a toog ci mbedd waaye xaqi mbedd sax dañ koy néewal ba nga xam ne ci tuur am ndox ci teg ay xeer ci teg biir maanaam jëfandikoo jumtukaay yoo xam ni wóor na ne te ji lii dafa bokk ci luy lor sa mbokki jullit ubbi ab foos wala gas foos yoo xamante si ne wóor la bokkut ci sécurité sa mbokkum jënkatoo sa mbokkum jullit te yi saa yit da séen seen ñoo xam ne dañ siy góorgóorlu ci defukaayu mbalit su ma doon joxe misaal wut euh, po boo xam ni bu mucc ayib lay doon nga xam ni suñ ko defee mu fees tëj lii jël mbalit yi bu dikkee jël ko waaye am na si ñoo xam ñi sant noona dañuy jàpp ni rek defukaayu mbali gii moom li jekk moom mooy jël yóbbu nga xam ni suñ ko waajalee ba mu jekk au lieu ñu bàyyi ko fa borom waaye dañ koy jël yóbbu maanaam daal sàcc te loolu tamit ñàkk a defar jikko ñàkk yar sa jikko ci lislaam wala njaboot ci lislaam loolu it da ciy feeñ loru sa mbokkum jullit daal ci anam yi dafa yomb lool ñetteel bi mooy waraddu salaam delloo am nuyoo mbokk yi delloo am nuyoo farata la nuyu du farata ci moom waaye yow ma koy fay farata ci yow su la wóoree ni soo toogee ci mbedd la war ci delloo am nuyoo doo ko def yonent bi alayhi salaatu salaam la mu la digal moom mooy nga toog sa biir kër asalaamualeykum sa mbokkum jullit wax la ko nga war koo delloo ni ko waa aleykum salaam yonent bi alayhi salaatu salaam daana wax ni bu leen nay mukk ci seenum nuyoo ci delloom nuyoo sa mbokkum jullit su la waxee ni asalaamualeykum yonent bi daf laa digal ni la na nga ko gën a tax bu la bu yemee si aleykum ji rek yow nag sa li mooy waaleykum salaam wa rahmatullah bu fekkee dafa wax ni asalaamualeykum wa rahmatullah nee na ko gën a tapp delloo ko ni ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndax loolu lépp ay ñaan la yoo xam ni jullit yoo koo soxla yàlla jàmm mu nekk ci yéen nga ne ko yàlla jàmm nekk ci yéen ak yërmande yàlla ak barke borom subhanahu wa taala xool leen ñaan yu am solo ñaan yu am am solo la waaye nit bu fekkoon ni ko baaxoo miinee rek bu yàggee jaar si mbedd mi fu mu toll di nuyoo soo moytuwul sax dañuy wax ni kat góor asalaamaaleykum ngaa ngi ne maam far ko ko wutule aw tur te fekk ni loolee tuyaaba la yii saa it njuumte dana am day am lu baree baree baree bare kii nga xam ne sàmmonteeg war may lislaam njàngale islaam bu day romb nag asalaamaaleykum te jërut si sa aw sant bu yàggee sax su nuyoo duñ ko fay ndax dañuy jàpp ni kii moom daf ñoo xeeb wala daf ñoo nàngam te loola mooy njàngaleem islaam te bu waxee asalaamaaleykum wa rahmatullah delluwaat daan ni jóob wala faar wala kan wala nàngam loolu yi dana mujj guddi bopp bu yàggee yi dana sonle kon nañuy yar suñu bopp ak suñuy nopp ci di nangoo dégg lépp loo xam ni njàngaleem lislaam la ñeenteel bi yonent bi alayhi salaatu salaam wax ni wa amrun bil maaruf di digle lu baax soo tegee ci mbedd mi sofaan boo gis bul ci tàyyeel ndax loolu tuyaaba la nit ki nga xam ni waa waajuram yëru ko ci biir kër ga su génnee mbedd mi dana ko yar sëriñ Basiru Xelkom day wax ni nit ki benn ñaari waajuram yar ko su ko ñaari waajuram yar yarut te ñaar yaru ñaari waajur mën naa nekk ci seen ñaari loxo wala ci yarukaay yén mooy daara ak lépp loo xam ne mi ngi moom nee na benn ñaari waajuram yar ko wala mbedd mi yar ko te mooy àdduna wala biir bàmmeel yar ko waaye suñ borom kenn du ko yóbbu ak yar bi kon yii nag nan xool ban moo si gën a oyof say ñaari waajur yar la moom moo gën a oyof moo gën a oyof mbedd mi dala yar mbedd mi bu la yarul biir bàmmeel it dana la yar te mu yaru biir bàmmeel moom yàlla na suñ borom musal moo tax mu ni deel digle lu baax soo toogee ci mbedd mi kon kee nga xam ni ay waajuram yëruñu ko ci biir kër ga su génnee su la rombee danga toog ci mbedd mi te ngay jëfandikoo njàngale mi yonent bi alayhi salaatu salaam danga nga ko mën waaye nag bul foog ni mukk dan laa yónni sa moom nga war koo jibbanti cent pour cent déedéet bul jàppee sa bopp ab yonent boo xam ni dangaa war a jàpp ni kii ngay waxal daa war a jub léegi yow moom lanu la sant digal leen lu baax di wattandikuloo safaan ba sa kem kàttan la sa des nga bàyyi ko ci loxoy yàlla ni ko kii boo doon ni yàlla jaamam yi moo moom yilif leen dénk ko kenn mayu ko kenn ba tax ñu jàpp ni kat dana war a doxe si ñoom sañ-sañ ndax yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga ni ko suñ boroom dénkaatee ni ko la la war rek moom mooy jotal ña nga xam ne kan ñoo war a gindeeku lépp day delluwaat ci man kon mbokk yi toog ci mbedd am nay njariñ waaye nag am nay loraange mu mel ni ba tey lor sa mbokkum jullit walla rafetal jëm su moom amaan na ay yoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa xam ni dafa am benn waay boo xam ni dafa romb caru garab boo xam ne dafa am ay dégg ci kaw yoon waajowu daal wax ni lii kat mën naa lor ay jullit kon lay sama yitt yëpp moom mooy fexe ba mu deñ nee na ci waxam joojee ak jëfam joojee fa udxilal janna marra rajulun bi wutni shajara ala dahri tariq fa qaala wallahi la unaxiyanna hada an ilmuslimin laa yudihim fa udxila aljanna axrajahu albuxaari ci jëf joojee mu jëf rek yonente bi alayhi salaatu salaam wax ni si la ko dugalee aljana maanaam fekk ab car bu rëy boo xam ne nekk na ci kaw yoon fees dell ki dégg mu ne lii kat dinaa ko dindi balaa muy lor ay jullit yéen ju rafet jooje moo am rek su ko dindi wutoon sax suñ borom da ko say fay rawatina mu def yitte ba loola ba dajal gaaw kon danga say déggee ni yow ma fàq ab car wàcc sa yoon wa muy lor kon loole bàkkaar la ndax kee rek duggee na sa aljana ci dindi gi mu ko dindi loolu dangay séen ba tey ci lenn ci jullit ñi ñu koy faral def te loola xam naa njuumte yu rëy la ci ñiy tuxal mbalit yor loo xam ni wala ci dul mbalit sax anam yu baree bari yor loo xam ni da koy jële ci béréb war koo tuur ci béréb balaa ngay àgg sa béréb ba nga koy tuuri xaaj ba des des si yoon wi te des googu yi muy des si yoon wi ay jullit ñoo koy jaar loolu jullit bu nekk. war na ko di bàyyi xel ba du si lor mbokkum jullitam safaan ba moom mooy ab xaadis boo xam ni muslim moo ko nettali ci kitaabul birru wax ni yonent bi alayhi salaatu wax na ni la xad raaytu rajulan yataxallabu fi ljanna fi sajaratin xataqaha min zahri tariq kaanat tuzi naas wala ba tey mook beer ñoo bokk mu wax ni am na benn waay boo xam ni dugg na aljana ci sababu benn banqaas boo xam ni da ko doon gis rek muy lang ci ak garab mu jàpp ni kat bànqaas bi ab jullit mën na faa jaar mu lor ko mu dagg ko bi mu ko daggee nee na sabab boobu rek sa la duggee aljana nga xam ni ab julit ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam ni yéemu naa ci mbirum ab julit yéemu naa ci mbirum ab julit naa ci mbirum ab julit ba muy ñetti yoon ñu ne ko yaa rasulullah lu tax mu ne lépp aw yiw la léppi julit ab yiw la ndax soo doon yëkkati potum ndox naan yéene si ak jaamu yàlla suñu borom dala siy fay aw yiw te téewut faj nga sa aajo xool ab diir kon mu mel nii eh, waxtu wi dab lanu yàlla na suñu borom defal dégg ak topp wasalaamaaleykum bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi nahmaduhu taala wa nashkuruh wa natubu ilayhi min sayyi'i المنزه في أسمائه وصفاته ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من جبر ولكم الأمين المبعوث رحمة ما يشغلنا عن ذلك من الفوائد من الفوائد الفاسدة وكل ما لم يكن فيه فائدة وتذكرنا أيضا أن العبد المؤمن بين مخافتين بين مخافتين بين مخافتين أجل قد مضى لا يظلم الله صانع فيه وأجل قد بقي لا يظلم الله صانع فيه فليأتي العبد من نفسه بنفسه ومن دنيا ومن دنياه لآخره ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وهدانا وإياكم الصراط المستقيم الحمد لله الجليل القهار مدبر مدبر الامور ومقدر الاقدار سبحانه هو الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ثم الصلاه والسلام على سيدنا محمد المختار المبعوث للخلق بالتبشير المبعوث للخلق بالتبشير والانذار wa ala alihi wa ashaabihi ulil aydi wal absar amma baad fa yaa ibaadallah tadakkaru qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam kun fi dunya ka annaka gharibun aw ala ghairi sabil wa qaala aydan i'tanimu xamsan i'tanimu xamsan qabla xams xuduu min xayaatikum li mawtikum wa min sihhatikum li saqamikum wa min ghinaakum li faqrikum ومن شبابكم لهرمكم ومن فراغكم من شغلكم وحافظوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم وما وافق فيها قسطاس الشريعة فدوموا عليه وما خالفوا وما خالفه فكلكم مجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وعليكم ألا تزالوا عائشين غيرين مشفقين من من خاتمتكم لأنها غير معلومة لكم وخطرها باق مع الحياة جعلنا جعلنا الله وإياكم ممن سبقت له من الله الحسنى آمين يغفر الله لنا